man de wax dëgg neex yàlla euh, bi ma gisee courier bi pour jégal ma ni ma dafa am ay étudiants ISE yoo xam ne université Cheikh Anta Diop bii la ñu bokk dañu ñëw en fait pour jëmbat ay garab defaraat environnement bi ci bi ci bi ginnaaw wax dëgg neex yàlla bi ma ko bi ma ko gisee mbégte laa ci am. mbégte mu rëy parce que dafa nekk loo xam ne ñun lu ñu bëggoon la lu ñu nasoon la mais yàlla mi ñu tum atte sot sotti sot sot sotteelu la ko alors bi ma gisee courrier bi nag ma ne ndeg lii moom dama koy jox CSA très rapidement mu jox service général bi nga xam ne moom mooy toppatoo tout ce qui est environnement de l'habitat pour déjà ñu woo leen courrier sax dooy wax ci waat parce que pour yoon pour leen courrier mën na yéex il fallait que très rapidement la parce que nag ay étudiants ay enseignants yoo xam ne c'est des utilisateurs potentiels des bibliothèques comprendre que ni bibliothèque du si biir rek si biti tamit ci la bokk loolu du ñëpp ñoo koy xam. et université dañuy tàmbali wane ay quelquefois ay ay ay à travers la télé à travers les médias des actions yoo xam ne ki n'ont rien à voir quelquefois avec l'université mais euh, actions yi mel ni ñu koy wane nit ñi di ko xam xam ni que université tamit ay nit ñu am bopp ay nit ñu am connaissance ay ñoo xam ne war ñoo war a jiite réew mi suba ñoom ñooy jël initiative lu rafet lu ñuy la. kontaan naa ci lool et je crois que lii bu jeexee wax dëgg neex daal man je serai personnellement content pour bu recevoir à la bibliothèque et vraiment magnifier geste bi ngeen def. loolu nag témoignage bu mu bëggoon wax devant seen kilifa di seen enseignant di seen lépp mu transmettre ma loolu en fait exemple kilifa bu mag bi naa ci lool wax dëgg neex yàlla. non entretien bi moom lu mu laaj dañ ko ci def c'est-à-dire après je crois que par xam nga la nature a horreur du vide c' est que ginnaaw bibliothèque lu fi loolu lañ fi def parce que du espace boo xam dañ dañ koy reboiser dañuy xam ne fii kat ku ko xool parce que lu set lu set boo ko xoolee di nga xam ne fii waroo fi sànni lu bon lu ñaaw donc en avantage boobu la am te loolu en fait dinañuy mbébét nañu mën a léegi jël suñu budget yokk ci en fait am loo xam ne vraiment dina mën a en fait continuer pour ñu mën a continuer continuer ko di ko def ak ko def ak yéen parce que merci beaucoup.